nga xamee ne que mooy euh, problème fondamental bi bi nga xam ne souvent mooy gën a ñëw mooy le problème de l'hydraulique euh, ay activités yu am solo def nañ ko parce que dafa amoon ay forages nga xam ne nekkoon nañ en baisse de production yooyu entretenir nañ nañ te baisse boobu noonu c'est réglé for ki également li nga xamee ne que mooy apport bi nga xamee ne moom nañu waroon def par rapport aux camions mais également aux bâches yooyu am nañu ay assurance ferme que dina ñëw à partir de demain incha allah euh, également lépp li nga xamee ne mooy forage bi panoon euh, avec l'appui de la mairie euh, def nañu réparation yi donc pour dire que sur ce plan bi nga xamee ne que moom nañu gënoon am ay inquiétude en tout cas li nga xamee ne que moo nekkoon engagement Euh, par rapport à l'hydraulique yooyu aussi euh, tamit euh, def nañ la tout ba nga xamee ne que dinañ am satisfaction incha allah kazalika même chose que maanaam li nga xamee ne que mooy Senelec mooy énergie parce que yooyu tamit su su amee kii rek day am problème mais yëpp yi nga xamee ne que moo doon doléance bu comité d'organisation bi loolu jël nañ ko en charge et la Senelec a pris déjà pris les dispositions pour mën a satisfaire loolu yëpp te loolu déjà mën nañu wax ne que satisfaire nañu ko euh, defe naa de manière générale et bu ñu fàtte aussi la sécurité tous les engagements euh, yi nga xamee ne que moom euh, moom nañu amoon par rapport à la sécurisation de la grande mosquée mais également mën naa wax ne que de toute la ville aussi mën naa wax ne que extérieur de la ville nga xamee ne que gendarmerie secteur de compétence loolu yëpp les services ont pris les dispositions dès à présent donc euh, pour mën a vraiment euh, am un bon dispositif sécuritaire pour nga xamee dina jël euh, dina jël en charge tous les problèmes de sécurité yi nga xamee ne que moom nañu daan am si si si si màggal gu mel ni waaw loolu moo tax avec la police un plan de circulation a été défini et que euh, dinañ gën a mën a renforcer sur la communication principalement pour que ñu mën a xam nit ñi fan nañu war a jaar fan nañuy aaye euh, fii nga xamee ne que moom la charrette yi war a taxaw ak yooyu et loolu liggéey boobu euh, déjà police commencé na ko donc dañ koy renforcer rek pour que information bi mën a jàll aussi citoyens yi wala ñi nga xam ne dañuy màggal see mën a xam na nañuy taxawee par rapport à ce plan de de circulation de manière globale Euh, li nga xamee ne que moom nañu jàppoon aussi en matière de santé mooy surtout les postes euh, avancés et également euh, le renfort en personnel et en médicaments loolu yëpp aussi loolu nekk na en place nekk na la nga xamee ne que yemb na incha allah. ñu teew fii tey nag ci kër Cheikh Abdoul Fattah ci jëm ci waajtaayu màggalu Kazu Rajab ba mu tàmbaleeg léegi defoon nañ ay daje yu bari ci wàllu administration bi. te nag ñu fii ci këram doon xool li nga xam ne moom lañ jotoon a tënk ci yoon yi ci daje yi jàll fu nu ci toll waaye alhamdulilahi rabbil alamin kon ñu ngi teg nuyoo boobu tam ci loxo préfet ak sous préfet bi mu àndal ak mboolem ñi nga xam ne ñooy chef de service yi fii nekk di ko ñaan tam mu àggaleel nu ko ci ministre ci gouverneur ak ministre de l'intérieur wa ci président de la république di nuyu Serigne Abdou Lahad Ka bi nga xam ne itam mooy maire Touba te moo dalal gan ñi fii ci kër Cheikh Abdoul di fàttali rek ne li tax ñu daje fi tey mooy waajal màggalu Kazu Rajab muy bis boo xam ne dafay bisu lislaam bis boo xam ne jullit yëpp dañ ko bokk waaye ni ñu ko waxee muy bis boo xam ne bisu lislaam la bisu jullit yëpp la waaye bisu yoonu murit yëpp la démb rek am na kilifa gu wax gu ma wax ne maa ngi topp waxtaan yi ngeen di def ak ndaje yi waaye màggalu Kazu Rajab moom nit ñee ko bokk waaye ñoo ko téyal seen bokk bu kenn woote wutoon kenn waxut ñëpp danañ ko màggal dañ ko daan màggale ne lam ci am ci gan mën naa wax ne du ko am daanaka ci weneen ci weneen ci weneen xew kon loolu li ñu doon wax rek su sunu borom da ko fayee Cheikh Mouhamadul Fadil ci woote gi nga xam ne wooteeloon na ko màggalu tubaab gu mag gi nga xam ne li ci nekk ci njariñ ci wàllu roox waaye li ci nekk ci njariñ nag ci wàllu àdduna itam ci wàllu zahir lu bare bari la ndax ku ne xam ne màggalu Tuubaa li mu dugal ci am koom ci réew mi ku ne xam na te loolu dañuy wax ne bu jàllee màggalu Kazu Rajab moo ci topp kon alhamdulilah yal na yàlla fi Cheikh Amadou Fadil bi mu tàmbaleeg léegi itam sëriñ bi mboolem njaboot gi maase nañ ci ni nga digle woon nu di ko def mooy waajal ko ci jàng alquranul karim waajal ko ci def ay istighfar di def asalaatu ala nabi waaye di ko def addiya Cheikh Mahamadul Fadil waaye nag Cheikh Mahamadul Fadil bis bi mu wàcc mooy al isra wal miraj di yow ci weeru rajab nga xam ne weeru rajab ci boppam day weer wu màgg woo xam ne li ci nekk ci ngëneel kenn xamul nu mu toll naka jëkk weer wu ñu warmaal la weer wuñu fonk la weer wu am solo la waaye rawatina bis bii dañuy def at mu jot nag sëti Cheikh Mouhamadoul Fadil yi ak ñi nga xam ne ñooy ñooy njaboot gi tànn tomb boo xam ne moom lañuy ñuy waxtaane ren nag dafa mel ne dañoo tàmmoon dañoo tànnoon nafaraat lislaam tàmbalee ca ponk ba ci njëkk ca mooy al imaan waaye bokk ci al islaam muy sha'ir yëpp ñu topp ko benn par benn tàmbalee ci julli ak koor ak aj Màkka ci ku ko man ak natt xasaka ñu di ko nafar di ko lënkale ak Cheikh Mouhamadul Fadel bu ci nekk ñu wax nam ko doon dundale nam ko doon taxawale waaye nam ca daan soññee waaye al ihsaan nag nga xam ne mooy mën nañu wax ne a tasawuf waaye boobu ñu jël ci xidma nga xam ne Cheikh Mouhamadul Fadel ku ne xam ne ni mu doon taxawale ci xidma te xidma mooy nga lu baax ngir yàlla defal ko ab jaam te yàlla rek tax ak ku di doon rek def lu baax jëme ko ci jaamu yàlla yi te yàlla tax loolu ku ne xam ne ne Cheikh Mouhamadul Fadel royukaay la ci woon nafaraat nañ ci lu yaatoo yaatu ci ni mu ko doon jëfee ni mu ko doon soññee waaye ni nga xam ne noonu la ko doon jàngalee. ba fii mu nekk nii kon wax nañ ne xam nañ ne wàllu administration bi alhamdulilah li ñu fi wax dal na xel Mbàkke jàpp nañ ne bu suñu borom dogalee lépp sotti kon alhamdulilah rek la ñuy wax.